ñu wan nag li mu ñu andil bu dee day liggéey pour président Macky Sall man gaw mën a dëgg la su fekkee ma ne su fekkee su fekkee président Macky Sall lay liggéeyal li mu présenté na moom la bëgg a def loolu du njariñu président Macky Sall ndax président Macky Sall def na nañuy waxtaan concerté wu ba tombé am benn consensus ndax dafa bëgg ay communes yo xamné ne dañuy am kom kom am doolé askan loolu la bëgg mais tay vous xolé rapport bi ñu jox li ma Vous dëgg ci présentation bi ndax dañ ne le décret de 2011 commune Bambilor fukki dëkk la ak juroom ñent du fukki ak génn décret bi décret bi fukki deuk la ak juroom ñet ak ñet cité ñu ne buñu paré ci li ñuy def commune Bambilor fukki deuk ak ñent mo fay dess c'est pas la vérité dafa am ñaari deuk yo xamné xel ñi maw ko présenter presse bi yeb dañuy xey na juroomi deuk lañ jël ci Bambilor c'est pas la vérité du dëgg juroom benni deuk traditionnel muy ñent deuk yi nga xamné moy mooy Kër Ndiayloo Kër Daouda Sarr kunun kunun ngalab jël nga giga gii nga xamne ne bu waa Bambilor wa waaye mbaam fa la seeni dom di jangé waye mbam seeni dom ñu ngay nga ñu ngay jangé waye mbam mu jël nga ne da koy bolé si sangal kam njaxiraat pël gi nga xamne ne jak saw ñoo ñëw mu ne mu ne mu ne mu pël googu da koy jël taf ko ci sangal kam waaw kon lolu du juroom benn dekk mu jël cité yi fukki cité ak ñaar boole ko ne loolu lay jël def ci Sangalkam mais suñu référence suñu fi ñuy fi ñuy saytoo ci décentralisation mooy code général des collectivités territoriales daf na commune bu dund ñetti at te gis nga ne sëg dund dund ko yore yàlla nañ la tas kon tey bu fekkee moo war a appliquer code général des collectivités territoriales Sangalkam waratul a am dañ ko war a taf indi ko ci Bambilor mu nekk commune bu mag bu am doole bu liggéey pour population yi. ñun gëmuñu ku dul président Macky Sall moom la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg bëgguñu ku koy nax bëgguñ ku koy nax ndax ñun ci dëkk bi la ñu juddoo nag fi na la ñu yaroo xam koñ bu ci ne quartier bu ci ne dëkk bu ci ne kon bu ko kilifa demee yëpp ku war a jox un rapport dajale commandement territorial bi. mais war na mën a lu sel nan ngay mën a dagg ab commune di ko créer di wàññi ab commune ta lay koom-koom bay dundal commune nga jël ko taf ko sa pour toroxal commune c'est ça l'objectif du ministre des collectivités territoriales mm-hmm. il faut qu'on le reconnaisse le président Macky Sall demandé ko lolu bu mu mettre les populations en mal ak président Macky Sall on le croit aujourd'hui on le croit demain et après demain et pour toujours gis nga dañuy wax te yalla rek moy tax et je défie quiconque ku mu manti doon bu la neexee nga ñew ñu tok plateau amal diplôme bu ne projet de loi bi incohérence yi ma si génn ku ci gis luy njëriñ lo xam man na jëriñ commune Bambilor nga wax mako ko fukki nit ak ben 37 48 présences 11 conseillers ta 11 conseillers bo len xolé lañuy wax moy li président bëgg lolu lañuy ñuy def ils n'ont pas argumenté ils n'ont ni négligé wax c'est ce qu'ils ont dit à nos collègues 11. non je ne peux pas aller là-bas mais loolu le président bëgg le mais président là-bas. Le président luy jëriñ la 37 le président l'île, ce ministre des collectivités territoriales présenté du lii mooy Sénégal yaa ne da bëgg ay collectivités territoriales yoo xam ne dañu am fu ñu dunde mhm. am fu ñu nokkee kii nag lii nga xam ne moom la ñu jox mooy kuy séddale rek moo yor nag wi la duuf sa nag moo ko moomal boppam